mbokk ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax euh, teewaat bi ci ndimbalu suñu borom ak kattanam ci 30 minutes euh, chrono ni ngi ko defee alxamis june di ziar ñëpp di nuyu ñëpp tey ji ñu ànd ci ci solution info TV euh, dikk nag ci actualité bi fas yéene waxtaanee tey ji mbir mu am solo mbir mi nag mooy li jëm ci les détracteurs de Sonko ak Diomaye maanaam ñiy dingat nguur gi yamatul ci dingat doxalinu nguur gi mais dañuy dingat jëmmi Sonko wala jëmmi Jomaay dingat boobu nag ñu koy dingat daf ci am ñoo xam ne teguñu ko fenn wala amuñu ay argument te tubaab bi dañ ne nit bu dee wax te amul lu mu lay taayale wax ji maanaam amul ay argument léegi day dugg ci di xas ak di xaxar wala muy saaga bu ne saaga wala sax muy fen di wax loo xam ne du dëgg loolu mooy nit ku amul argument parce que bu dee ni niveau bi dafa yéeg depuis nguur gi ñëw débat bi nekk foncier mbiri suuf débat bi nekk les accords de pêche débat bi nekk la coopération internationale rawatina ci dëkk yi sasoo ak Sénégal maanaam la débat nekk un débat économique léegi ñu tàmmoon ci réew moo xam ne débat bi da daan politique alors que politique ku ne da ciy mën a wax sa xalaat mais léegi Sénégal dafa toll ci débat wax ci loo xam ndaxte nag économie lu ñuy xam la di ko gëstu te daa am benn waay bu mu wax ni nguur goo gis ci àddina ki koy jiite li mu gën a miin bu ñëwee loolu lay gën a song ji nga jomaay bi mu ñëwee coowal suuf la njëkk a song parce que impôt domaine bi mu ne lool la xam ji nga Macky bi mu ñëwee pétrole la njëkk a wax ak ñun mais bi mu demee ba ci digg bi Sonko bindil ko ab téere tuddee ko pétrole gaz Sénégal ak nin ko yeree luubal ak njublang ngi ci nekkoon ak Sénégal 10 pour cent yi ma ciy am ci alal ak gànjar gu tool noonu Macky xam ni li mu doon jaay lamb na ci wàllu débat économique rawatina ci pétrole mu dellu ginnaaw léegi ci la ñu dugal ci débat politique du ma dellu ci waat ci péripéties yi mais Macky au début li mu doon nappe opposition wu Sénégal mooy bu leen ma wax ci politique tontu leen ma ci débat économique Macky Sall bi muy doog a ñëw ci yooyu la ñëw. mais bi ko Sonko indilee livre bi Abdoulaye Wade ñëw indil ko mbiri ArcelorMittal ak coowal mine beeg yooyu ak signature yi ñoom Aly Ngouille defoon ak yooyu mu xam ne daraan napp gars yi rek mais tey jii bu doon ne da doon làmbatu daj na léegi nag tey jii jomaay ñëw ak ñun ci mbiru suuf yëngal lu bari nga dégg ma jàmbal jaañ bari suuf loolu ak keneen ak keneen nga dégg ay journaliste ginnaaw littoral bi ginnaaw Mbourkat Thiès ma dégg Abdoulaye Sow naan nouvelle ville de Thiès sax la tudd turul Mbourkat léegi l'essentiel mooy terrain bi ak suuf si am na Thiès rek te am na ay kilifa yu ko seddoo loolu rek lañ bëggoon xam ñu gis les accords de pêche accords yi xam ne ay courtier ak ay njublang yoo xam ne dañ daan mbubboo tubaab yi nga foog ni ay doomu Sénégal la ko moom fekk danoo mbubboo tubaab yi pour mën a def accords yi tey jii nag bato yooyu ñu ne dañ leen di recenser balaa ñuy suspendre accords yi moo tiital ñu bari léegi li Jomaay doon wax bi muy doog a falu du ma nangooti rangoo ñu baadoo di suum cere buur loolu nag boo ko waxee ci réew moo xam ne. njublang mooy li fi gën a dox lijjanti mooy li fi gën a dox tappale mooy li fi gën a dox yow nga ñëw na jub jubal ak jubbanti dina am na ci ñoo xam ne dinañ jëfru dinañ jëfru mais aussi dinañ taqalik ak seen sago parce que xam na ni sàccoon nañ ay ndënd waaye tey jii fi ñu ko tëggee moo jafe dafa am lu baat bi Serigne Moustapha Sy daan wax sëñ Moustapha Sy mu sar ci diin wal mu sar daan mun ne tat ta maanaam sàcc nënd yomb na waaye fi nga ko tëggee moo jafe waaye ci Sénégal nag léegi dafay yomb ndaxte nit day sàcc sa ndënd ba noppi ñëw di ko tëgg si sa kanam te doo ci mën dara loolu nag moo war a dakk parce que nag munoo fi nekk fukki at ak ñaar ŋàbb réew mi ñu dénk la alal réew mi dénk la suufu réew mi dénk la ay accord ay licence ak yëpp ñu dem ba yaabooy li naan bu amuloon yax baadool du ko lekk kenn gisatu ko ci réew mi jënaton amatul ci réew mi leneen ak leneen ci ñaari fen ñett ñu jël ay dogal ñu gis gël jën yi di tëmb lébu yi di jébile looloo tax au bi bi Diomaye di nekk candidat tappalekat yi ak nappekat yi lan la doon wax noo réew ku ko miinul xamoo système bi yow musoo jiite dara munoo ko yor noo àdduna volonté kasa la volonté ak jub daf ci am loo xam ne bis boo ko waxee sax te muy dëgg yàlla da ciy ànd ak yow ci diiru benn weer benn weer laa la wax de Sonko ak Jomaay def nañ fi loo xam ne danga naan nii est-ce ñi fi def fukki at ak ñaar sax def nañ ko fi mooy accords yi ñu revisité dañ la daan wax ni non dafa lu yomb la quoi xam ne yooyu la la daan nappee naan la lu jafe la les accords mun ñu ko renégocier lool ay nappe la woon maanaam même Macky Sall bi muy dem mu ngi koy wax ci benn journal nan accords yi kenn mënu ko renégocier ci wàllu pétrole PG ne nii ñun ñoo moom suñu alal man maa la ne woon ñëwal ñu dem ba bis gisatuma ci sama bopp mais tey ji bu mu ne la arrêté lu war a yomb lay doon léegi nag arrêt loolu nag di arrêt bi ci lan la war a sukkandiku loolu ay waxtaan la ñu nekkuñu foofu tey jii ñu ne non campagne mbirum mbay mi Diomaye ak ko ñëw ñu ne ñaat la woon ci imp ñaat la woon ci campagne bi ñu ne cent milliards ñu ne ñoom yokk nañ ci vingt milliards mu nekk cent vingt milliards te pourtant ay at baykat yi di jooy ñu yokk ko pourtant yokk nañ ko pourtant bu njëkk ba yow mi xamul da ngay foog na lu jafe la ñu ne séddale semence beeg engrais yi ñu ne nañ nañ ko jox armée bi léegi du jaar ci ay intermédiaire mais lool est-ce jafe la loolu du il suffit man dama ne nguur ñaar la yomb jafewul mooy dangay mën a jël décision ak mën a sanctionner pour moom boo mënul jël décision jël ay dogal mën a sanctionner matoo nguur te ñaar yooyu képp ku am courage mën nga ko waaye nag yow mi koy jël day fekk nga jub l'essentiel mooy rek li naan ab tegale bu jugee te daanu ba jiitu moo jub ak ay dëgg te jën ca bopp ba lay nëbee waaye bu dee bopp bi baax na jën gi dinañ ko mën a jëfandikoo na njiitu réew mi jub rek di jubal ak jubbanti maanaam moom bu jubee jub jubal jubbanti da koy yomb parce que ci exemplarité la ñuy jiitee léegi nag bi ñu ñëwee ci loolu ñëw ci songu suuf si lobby bi teewoon na Macky Sall avant mi dem wax nañu lu coowal suuf si lu toll ci quatre vingt dix pour cent ci kalaame yi muy jot ci suuf la te mun na taal réew mi Macky Sall na ko fi mais li mu ci jéem dara. démb maa ngi dégg le médiateur de la république Kandji mais anam moom fu mu nekkoon la médiateur démb mu génn naan coowal suuf war nañ ci jug li nekk ci littoral wala mburkat loolu rek la nit ñi gis waaye boo demee dans le monde rural ci baykat yi ab bombe foncière la boo xam ne heure bu ne mën a kalaate mais médiateur fan nga nekkoon démb man j'ai l'impression que Macky bi muy nekk ci réew mi liggéey dafa amul wóolu waa Descos Descos bii ni ñu naan moo jël ay arrêt ci littoral fu nekkoon bu musaana dégg des ko xam nga foo koy dégg mooy toj na ay këru baadoo la maanaam maanaam man ak ma sàmba wala ma dem demba ñu am sunu kër ñu ne kër gi nan ko amee baaxul des ko ñëw toj ko maanaam toj këru baadoo la yi mënoon na ko mais mosoo fi gis des ko jël décision pour toj këru kilifa yi li Jomaay ak Sonko xam ci littoral bi waa des ko ñoo leen gën a xam mburkat ban fay dem en 2019 wala avant 2019 di toj doon li mais bu ko kilifa yi séddoo lan la ci des ko def te seddo bi ñuy wax nag duma la nëbb de ñu bari ñi jëloon ay hectares ak ay terrain jaay nañ ko jaay nañ ko waaye képp ku làq ku làqar ci moo ko ëpp doole loolu tax jomaay dem maa ngi dégg Babacar Diop la maire de Thiès ne bi jomaay di nekk prison war na ko ñaari yoon di ko laaj ay renseignement ci mbiri mbuurkat mais bi mu nekkee avant mi génn woo na ko ñu toog prison ñu waxtaan ci kon jomaay mbiri mburkat dara ump ko ci nagam ba mu nekkee ca kaso ba la ko doon lijjanti asamaak tey asamaak tey léegi nag song googu ñu song accord de paix yi song ko suuf si du yomb de ndaxte am na ñu taxaw ak seeni journaliste ak seeni waxkat ak seeni tappalekat pour yàq loolu ma njëkke ko ci ñi naan Ousmane Sonko këram gi mu am ci cité kër góor gi fan la ko jëlee manipulateur journaliste Ousmane Sonko waa Sicap SA yi ko joxoon kër gi nee na da ko jëndoon da ko jëndoon di ko fay di ko fay ba 2016 waaje ko yoroon liggéey ba jën génn ci internet bi wane ko wane ko un journaliste boo xam ne du n'importe kii xam na xam-xam te mën na def investigation mais lan moo ko dugal ci manipulation yooyu ba bëgg gëmal nit ñi Ousmane sonk ak Jomaay fan lañ jëlee seen kër yi Jomaay Sonko Jomaay def déclaration de patrimoine wax fi mu jëlee këram ak impôt et domaine bi mu ko amee suuf si waaye tabax bi sax dakaa leb maanaam ñun bi ñuy fal président président bu yor ay bor moom la ñu fal tubaab nee na kii paye ses dettes sans maanaam képp ku fay say bor ba mu jeex am nga alal kon ñun président bi yu ñu yoroon mu yore ay bor am amuloon alal parce que bor yi mu yoroon sax dafa amoon problème pour fay ko te bor yooyu li ko jural mooy tabax këram kon ñoom may ñu leen ay terrain seddu ñu leen ay terrain Sonko ak Jomaay xamaloon moo am impôt et domaine dafa amoon jamono liggéeykat yoo fa nekkoon mos naa ci waxtaan ak benn femme boo xam ne dafa traité doomam bokk Pastef bu jigéen ñu jàppoon ko ci kaso bi ma seeti ko na ko sa doom ji lan moo ko dugal ka kaso mu ne noo Sonko bi mu àndal ma ni ko yow nag foo bokk Pastef mu ne noo man PDS laa bokkoon ma ni ko lu tax nga bàyyi sa doom ji mu bokk Pastef mu ni ma li ñu Ousmane Sonko defal ci impôt domaine moo tax tey jii ma nangu sama doom bi ma tàggoo ma ne ko demal Pastef ndaxte bu mu mënee am kër man bu mu mënee am sañ-sañ parce que impôt domaine moo doon liggéey boo xam ne dañ daan liggéey ci suuf mais liggéeykat yi doon liggéey ci suuf ñoom amuñu woon dara ba ci fonds commun yi ñuy wax Ousmane Sonko da cee xeex lu bari ci impôt domaine maanaam Ousmane Sonko ñi mu yeewee askan wi ci wàllu politique ba tey ji Sénégal dem ci souveraineté mais noonu la yeewee waa impôt domaine njëkkeewu ko mais bërëb ba mu doon liggéeyee la ko njëkkee nekkoon ab syndicaliste njëkk a ab syndicat ci biir impôt domaine fexe ba lee travailleurs parce que ñu bari dañuy jaawale syndicaliste su dóorkat ak syndicaliste boo xam ne parce que fii syndicaliste yi fii gis ñu bari patronat bi leen gën a jege maanaam kilifa yi yor entreprise yi seen mbir di dox rek ñu jot ay cekof waaye Ousmane Sonko dafa fexoon ba lee travailleurs de domaine mën a am kër. te tey jii képp koo xam ne yaa ngi nekk ci bérébu liggéeykaay mais boo sañoon mën fa am kër kon tey jii travail impôt et domaine yi doon bindal nit ñi wala yi utal nit ñi kër ñoom amuñu woon ay kër amuñu woon fu ñu dëkk syndicat bi xeex ko ba liggéeykat yooyu am ko tey ji bari na ñu topp Ousmane sonk ci impôt et domaine seen teranga ci biir impôt et domaine ak seen condition de travail yokk ci xeexu Ousmane Sonko la juge ndax dañ daan liggéey ba dee ay kilifa di loolu nag ñu ne ñoom na dakk loolu moo indi tey jii ñu ne noo di ba muy am terrain jënd ko mais bari na ay enseignants yoo xam ne bi ñuy am terrain jënduñu ko bari na ay soldats yoo xam ne bi am terrain jënduñu ko am na ay magistrats yoo xam ne bi ñuy am terrain jënduñu ko tey jii man dama gëm ni sénégalais bu ne war na mën a am terrain mburkaat bële bu doon ni tey jii dan ne kan moo dëkk Thiès bi Souka Thiès la dëkk ah ñu ne ba mu dalee liggéey de yàgg na nañ ko jox terrain. diw ak diw diw mais bu doon waa Thiès lañ ko séddalee ñu dem dëkkee ko defaraat defar ci ay infrastructure sociale de base yoo xam ne da leen di accompagner parce que nit ki fépp fu mu dëkk dina am kaaraange dina am fu mu fajoo dina am marché dina am ceci ou cela mais bu boobaa du jur débat bi mais Mbourkat xamulu fa xew danoo déclassé ab forêt ab àll defoon ko nouvelle ville de Thiès bu ne nouvelle ville de Thiès pour kan la pour Thiès waaye nga gis Farba Ngom jóge Agnam nee na day jaay suuf Farba Ngom jiga añam nee na day jaay suuf nee na moom jaaykatu suuf la quoi moo tax mu am alal te du lebu du kajoor ajoor ajoor du bawol bawol kenn mu nga jóge añam léegi mën a am ay suuf ci diggante Ndakaar ak Cees lu kenn amul mais tey jii ñii bañ loolu xeetu Farba yi li ñu def ay Abdoulaye Seydou saw ay ñoom Idrissa Seck ak keneen ak keneen mais loolu moo waral coow li li ñëpp moom ñu war ko séddoo ba ci les cent mille logements logements sociaux yi mais ñetti nit ñeenti nit wala fukki nit séddoo ko te Sénégal noonu la daan mës a mooy ak système d'accaparement ni ma koy waxee mooy daa am ñoo xam ne danoo accaparer lépp ñoom danoo jàpp ñoo war a sol yére bu rafet ñoo war a sol dàll bu rafet ñoo war a dem di dikk ñoo war a yëg ci avion yi ñoo war a yor kàr-kàr mais ñoo war a am ay terrain te terrain yooyu ko dara xamuñu def jaayaat ko jamono boobu. ñi nekk ci askan wi xam ne ay salarié lañ doon ay fonctionnaire ñi nekk dans le privé wala kii wala sax ñu nekk dans le secteur informel ñoom mun ñu am kër tey jii gisoo fi ndaw liy samp kër kan moo fi samp kër li saa njóogu doon wax këram naan ay borom néeg fi am mais borom kër am bariwu fi mais c'est vrai te pourtant du ñàkk jom du ñàkk mën a liggéey mais da ngaa doyloo li nga am mais li nga am doyul pour nga am kër parce que fan la ko waroon a joxe ay kilifa ñoo ko nangu ñi jaay ko ñi def ko ay immeuble ñi def ko ay auberge ñi def ko feneen ak feneen ci ndimbalu président Macky Sall ji nga nag taxaw boobu ñu taxaw ñoom Sonko ak Jomaay créer ay rupture rupture yi waxuma rek ci côté sax ay économique ay accord de paix mais ci doxalin un président de la ñu fal la nga def tournée africaine te gars yi fii kun fi mës a fal da ngay dem jébalu ji wante dëgg mais l'Afrique d'abord sama bopp ma la gënal du bañ naa la mais nga dégg gars yi di ko interpréter nu ne ñu war a def réunion ñoom seen parti politique Pastef pourtant am na ñu ko doon defee ci salle de banquet ci pale bi jomaa ngi nii toog mais danoo génn danoo génn dem defe ji ko ci benn salle privée parce que boobu affaire politique la bi nu waree waxtaan ak waa benn yi danoo dem ci salle privée nga gis ñi amul argument te bokk ci réew mi amuñu argument xamatuñ lu ñu war a wax ndaxte seen wax jeex na ñu ne non président day dem kin far palace lu tax muy dem kin far di bàyyi pale bi alors que kooku di wax loolu naan ñaata la ñuy fay kin far palace journaliste boobu c'est un manipulateur mooy président bu mës a ñëw Sénégal depuis méridien président mais da ngay am suite présidentielle suite présidentielle boo xam ne da la koy jegleel biir kin faat mais président bu mënul tëdd kin faat kan moom fay tëdd ñun tëdd ci avion bi la président bu mënul yéeg avion kan moom fay yéeg ñun baadoole rek bu ñu amoon tey jii suñu poste tey jii bul neexee ñu dem jël lu neex kin faat lii jaay la ñu koy jënd bu président bi demee ci sëriñ si sukk jox leen seen cër yëkkati leen ñu ne non day cinéma day tappale bu ko defuloo ñu sikk ko foo dem sukkal raamal ñaanal yëkkatil sëriñ bi waaw day ko def parce que boo ko deful woon ñu ne non salaf la moom de gëmul sëriñ si moom de lii amatul lu ñu wax ñu ne noonu day cinéma waaw mooy amuñu argument loolu tax tey boo gisee ma ñëw dama da ngay sentir ni ñi détracteurs yi ak ñiy dingaat Sonko Diomaye amuñu candide argument amuñu argument tey ji ñun la Diomaye dafa am terrain xaw ma fan yaga ñaaw xaw ma sànjar je ne plus mais loolu kenn terewu ko ci réew yor sa xaalis gis ab terrain man xam naa ay nit yu bari yor seeni suuf dañ ko jëndi dem di ci dëkk kaw yi dem créer fa ay poulailler créer ay poulailler yu ma xam ay nit yu ma xam créer fa ay poulailler créer fa ay tool di employé ay nit di leen fay mais terre agricole mais Diomaye dafa am kër am terre agricole au moins mi ngi avant mi nekk président daal na investir pour liggéeyloo ay nit bu ko neexoon mu doon ab fonctionnaire yam ci yaay papa doom gardien ba ak xaj bi ci bundu kër gi mais au moins demoon na lebi xaalis sax dem jënd ko terrain def ko ab tool tool bi moom bayi ko am na ñu koy bayal ñu naan non terrain ba mu am fële fii ku fi am sa xaalis gis terrain boo mën a jënd ba mu ngir ngir ngir mën fa def loo mbay wala dara mais mën nga ko dem def li ñu wax ni li ñuy bëgg a tappale dem maa ngi dégg Abdoulaye Sow Abdoulaye Sow mi nappe te moom xam na ni moo nekkoon le ministre de l'urbanisme suuf sii da ci am wàll te gars yi dinañ wax ak moom waxuma ni moo def walla deful mais man naari naari naar yaa ngi wax di nappe di menacer naan non mbuurkaat tuddul mbuurkaat nouvelle ville de Thiès la tudd mais loolu gën a xam kenn mais cooli mooy terrain yi fa séddale lu tax ñu séddale ko ak ci yan critère lañ ko seddalee ak ñin ko jox ci yan anam la lañ ko joxee loolay wax ci littoral bi li fi ne mu doon domaine public maritime lu waral ñu seddale ko loolay wax ci nan non ñoom sunu nguur jeex na waaye ñoom nanu xam ne seen nguur dina jeex te lépp luñ fi def dina leen ko fay Ablaye Sow di menacé nagam yow ba ngay yor nguur nga mënul dara sonkook Jomaay tey bi nga nekk opposant mënuloo leen tus te nag àddina ji nga àddina des fois la ma doon boo yaroo ma daan la mais boo yarul ma dóor la nga daanu di nga àdduna da di nga da ngay benn moment da ngay courbeli sin def profil baax yow def fi li na weng jaar nga kudd yaa ngi yor tey urbanisme ñu fekk la kafrin humilier la politiquement mais da ngay xam nooy wax nit ñi di nga arrogance yi nu den def noonu di nappe parce que Macky Sall nekkoon seen ginnaaw lu nu def justice jàppale leen ci lu nu def takk der jàppale leen ci loolu dakk na. maa ngi ko doon wax sama cronique bu mujj mais la Mamadou Dior jaar doon wax Sonko ak Diomaye war na nit egg ci niveau boobu mooy ku fi mbaam mbaam lu ñu lawbe lawbe lu sa kaw teg ko ci yoon nag ci justice. mais bàyyi leen ñu occuper le plateau di wax lu leen neex di porte presse dem bay menacer waate mais loolu kenn waru leen ko may danoo war a rendre compte ci li leen jiiñ boo déggee ñu naan la par rapport cour des comptes rapport kase la dafa épinglé mais rapport boo gis am na contre rapport boo xam ne tey ji balaa ñu koy publier yow dala koy jox nga liir ñu confronter ko def confrontation mais tey jii rapport yi boo dégloo déglu ku mel ne xalaat TV ñuy toj rapport da ngay xam ne gars yi dañuy sóob ay defkat lan léegi nag yow munoo def lu na weng ba pare ñëw di napp nit ñi nagam yow ba nga yor nguur nga mënul nit ñi tus lu tey ngay mën a nit ñi dara bu amee looy compte booy rendre da ko dem rendre la justice la lan doon wax ci Sonko force reste à la loi Sénégal état de droit la na bàyyi plateau yeeg live yi Sonko loolu la doon wax te dem. wuy ji tribunal ñoom bu ñu amee li wax na ko waxi procureur loolu daal la procureur de la république mais ginnaaw rapport yi liggéeyam dafa war a tàmbali ñuy convoqué gars yi ku mën a fay fay ku mënul fay nga dem remplacer Sonko ak Jomaay ca kaso ba parce que pour moyen que ça bari na ci ay booy dugg kaso des milliers de jeunes sàccuñu dara lu dul démocratiquement ñu doon xeex dara ci réew mi nga gis ñi fopp alalu réew mi sàcc alalu réew mi. ñoo te dëgg ba pare bëgg a occuper di wax lu leen neex di menacer waate mënul ne politiquement mën nga ñëw def sa débat def politique mais daam loo xam waruñu leen ko may waruñu leen ko may parce que nag mënoo leen ñu dóor ba ñu daanu réew mi sa ngéem ngeen di lépp jaay suuf ci séddoo réew mi ba pare du ñu dëggate sëñ Abdou doon na ko wax mën naa nangu toog ci suuf lal sama basek waaye nag kii ñëw di ma teg tànkam nag moom du ma ko nangu te loolay dëgg te loolu lépp teguñu ko ci lu dul manipulation manipulation kase te manipulation yooyu xamalu tax du dem askan wi da leen ci bàyyiwul xel des fois nga dégg benn ay Diop Fall dégg benn kii nu mu tudd Adama Fall hmm? dafa nga dégg benn ma Madiambal Diagne Madiambal mi naan danoo arrêté décision bi ñu jëloon pour dakkal liggéey bi ci littoral bi danga koy xoolaat yaa ngi gis moom ma jambal moomu tey de ji nga manipulation bi mu def Sonko ak Diomaye falu le budget nekk en cours ndax danoo voté budget bu bees budget bi ñu woote ko ci plan Sénégal émergent PSE le Sonko ak Diomaye ne li jëm ci projet bi léegi day xaar ba deux mille vingt cinq pour que ñu commencé ñoom dérouler seen programme mooy projet bi mooy seen programme de gouvernance bu bees bi ñu ne non ñoom PSE bi ñu fi fekkoon moom la lu bëgg a continuer. kon mooy wane ñoom seen projet bi xottu la woon ma jàmbal wax a projet bi Sonko ak woon ma jàmbal waxul dëgg mais état continuité la lan la wax rupture dans la continuité mais li fi li fi fekk ñu woote ko ci budget ba pare teg fi ay programme est-ce que da ngay dajji BRT bi ne waratul continuer est-ce que TER bi da nga naan fi la yem est-ce que Puma da nga naan fi la yem est-ce que Prodac da nga naan fi la yem doo ko def li baax ci nguuru Macky Sall mais dañ koy. continuer même li ci jubul ñu jubanti ko fexe ba mu gën a baax bu nu exécuter nag le budget bi Macky Sall wotaloon mais bis bu ñu demee en deux mille cinq ñu am budget bu bees mais Sonko ak Diomaye mën a dérouler ak seen programme bu bees mi ngi mel ne nga ñëw ci kër mi di jot fekk ñi teg kin une heure lan war a yàq est-ce que da nga naan teggi cin li toggul leneen ba xëyee joxe nañ dépasse bi na lii lañ ciy togg ba yàq jot yow nga ñëw fekk ñu waaje yàkk nga ni noo damay génnewaat dépasse pour ñu soppi cin li mënul ne ma jàmbal dem na ba ne non ñii ni ñuy doxalee mais lenn rek moo leen dese jël Amadou Ba def ko premier ministre mi ngi ko wax leen di lundis de Madiambal chronique yooyu muy def xam senegal du liir lu bari nee na jëlan jëlan Amadou Ba def ko premier ministre loolu rek moo leen dese woon waaye lépp lu Macky tàmbali woon ñoom ci leen ne kon moom dafa bëgg a wax sénégalais yi ni bon gi ñu doon banal Macky Sall mooy wane Macky moo fi ne ba tey ji Madiambal yaa ngi ci politique politicienne ñii ñi ngi ci état jàmb nga jàmb jàmb jàmb jàmb ba mag Sall forox toll ba sénégalais yi bëggatuñ ko boo continuer di jàmb mais du saf kenn mais il faut la vérité aux sénégalais mais nekk ci opération de sabotage boo xam ne doxul parce que bu doon lu dox la ñii dun falu ndax yàq nga leen lu ne jiy nga leen lu ne taxaw nga ci lu ne. mais tey ji ñoo lay jiite far force Sonko Diomaye ñooy sa président ñooy doxal pour yow PSE wala projet bu mu ci mënti doon ñooy joxañ ngay dagg waaw littoral bii loo fa am te daganul ñoom dinañ ko nangu tey ñoom ñooy doxal fii ak cinq ans il faut que ñoom ñu muñ te xam ne lii la suñu borom dogal loolu tax les détracteurs yi taxaw mais malheureusement li ñu taxaw yëpp di ko wax lu tax doxul mooy amuñu crédibilité parce que buñ amoon crédibilité Sonko ak Diomaye duñ falu mais malheureusement danoo nar a sonn ci cinq yi seen énergie dafa nar a jeex seen i salive dafa nar a jeex sonk ak Diomaye ñu ngi doog a tàmbali un mois lan nga leen mën a waxal lu dul ni les signaux son verts ñun ñu toog fii bis bu ñu gisee bis sonk wala Diomaye tegu ci tànk yu baaxul ñun ñoo ko njëkk a wax ndaxte nag buy wàddu falo dañ kaa gunge ba 2007 boobu ci lay doog a commencé média mais bi mu demee ba bëgg a dugg ci yeneen Sénégal yoo taxoon na ko déet di nga état de grâce bi ngeen mayoon Wade may ko Macky Sall ba mu am deuxième mandat ji nga état de grâce boobu may leen ko Sonko ak Diomaye ay nangu woy woyofal ay duma loolu tax Sonko ak Diomaye ñu ngi koy gérer fële. imaginel ñii di takk der yi ndeysaan xola takk der yi ci nguuru Macky sàll foo leen a a gis ay lacrymogène lañ daan séddale ay lacrymogène son ak Jomaay biñ ñëwee takk der yi ay semence la ñuy séddale loolu mooy la voie du développement yoonu suqaliku yoonu ndam loolu garaaw la maanaam takk der foo ko mës a gis Sénégal rek lacrymogène la yor pare pour tirer tey jii ñu yëkkati koomu réew mi teg ci seen loxo na leen séddale na leen semence yi ak engrais yi mooy wane ni Sénégal jël na beneen yoon kon ku bëgg jàmm tegul ci yoon ku bëgg leneen nag mooy lool kon di gërëm ñëpp di leen sant di jégalu ñëpp di leen baalu àq euh, di nuyu bu baax El Hadji Modou Diouf Abdou Top ak ab Ablaye Diallo yi nekkoon ci régie bi ak Fallou Omar bun Xattaab gi nekkoon ci kàddu gi beneen alxamis incha allah ñu ñëwaat ci beneen 30 minutes chrono ci solution info TV jërë ngeen jëf.